yëkkati na moo amadu Ba boo demee di campagne looy layal sénégalais yi turbine yéen a kaay xëy sampal laaj premier ministre naan kon yaay candidat bu président Macky Sall dëgg la waaye yow Amadou Ba boo solee sa dàll janoog sénégalais yi lan nga fas yéene taxaw nag janoog ñoom wax leen ko Walf Quotidien nan kon moo ne sénégalais yi ñuy xeeb taxaw teem nag di wax ci politiciens yi diw mooy candidat diw du candidat dàq nan diw diw dugg na ma ne la kàddu gu mujj ga sénégalais yaa ko amee loo ci manti déggit ñoom sénégalais yi ñooy wote ji turbine yéen a kaay naan kon sénégalais yooyu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 toll ba boole wun ko ci Abdoulaye Wade tey jii nag yéen ñi uufu ci keppaaram keppaar googee mal faranku laay ca ay détournement de deniers farankulaay ca def lu ne weng te dara du la ca fekk faranku laay fa